sëriñ bi dàkkul nu mboolem luy taxub xola wow ak luy waral xola dee ak lépp luy taxa mooy sëriñ bi dàkkul nu mboolem luy taxub xola wow ak luy waral xola dee ak lépp luy taxa mooy te may nu luy tooyalub xol faw wa kay rafetal nan njortu tey sawaral ay cër bi taxa nite wi ñu deenu may faw a kay wan luy waral sunu xol di sedd kay nux nuxee kay bég ci yow ki nu may guddee ki bëccëg lu ci ñëw nay ñëw ak sunu mbég taalal nu far taali mbég yoo xam ni dootuñu fay tey ak ëllëg nañu nuy ñëwee nañu bañee ñoon sunu ñëw te may nu may ñu nu soppit faw jant bu rëy tekk ëllëg nañu nuy ñeenum bañee sunu ñun te may nu may ñun soppit faw cant bu rëy ñoŋal na nun bu nu ruural kenn lëf bu nu kenn ruural lëfit far nu sellal may nu mucc gu way tabal mu ci cant ak yërmaande boole nu duy fawan njariñ ba nu fees ak ay njariñ nu bay notal nu soppeeki noon ak bépp lar bu nu gis te not nu ci aw ndigal fawit ba dee fi nu roy jubal nu may nu ñu jub nuy def lu jub di ko wax te sax te faw ba yàllaa kiy laram ju nu way bu soppiku jamono ku yàq jëm si ci nun loo xam ni kan noo ko ci jikkoo fi jëf nanu moy ñoo ngi ni wét ni ak maaxus te ñeelu nu yëf lu dul sa yërmande ji nuy séeni yow sunu ndey bu nuy bon ak bu nu baaxee lépp far nu yërëm te may nu ndimmal lu rëy luy dolli gëm sa gu ay xëy noo ki cant ak i ndimmal gont noo ki ngëm te far fanaan ak i ndig may nuy ndamit sog a xëy tabbil ci man ak ci kër goo xam ni maa ko defar tefar jagal ma jagal saa gépp kër bu ma jay man yaa di ndaw si man nopp yal naa di far wi nga nopp yal naa di far wala léppam saf ñu far la ko may yal naa la sopp bu wér yal nag ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nag ma jublu bu wér yal naa la sopp bu wér yal nag ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nag ma jublu ba tey mbind ak cat ak lépp luy jur sikk yal na nu moy lu nam ma tee dox sunu diggante jàpp ko rey reyal nu luy teenu bég faw ak lu nuy taxa mer tefal nu nag faw dàkkul nu moy ak aji moy sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole noo te ca ñuy xaltee te fekki déwén sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole noo te ca ñuy xaltee te fekki déwén doleeti nu mucc ak xéewal te may nu bu wér nuy teewe jépp déwén tey yokk faw ak a gën doo jeele doo jeele yaa woomal te farta be nag jagal nga ñépp te jag lii tax ñu teg la fi nun yàllaa nu bëggalu yiw yàllaa nu fàggulu yiw moo tax mu teg la fi nun nuy raas yiw fi sa ron yal nañ fi yàgg nu yàggal yow te aw sa ndigal awloo ko ñépp te sut nañ ñépp tur aku fan loo daan bét ci sa digg ak yàlla yegg na yow lu nuy mébét sunu digg ak yow na yegg ci kun te bépp lar bu ma bëggal jàmm boole nu jox jàmm ak tiraanga te may nu mucc nag ci lu bon nekkal ci mboolem sunuy wet wër nu kapp aku yiw taxaw ci nun ba nuy yegg ak jàmm fépp fu gën tegal nu luy doge faw ak képp kuy doge it te def mu dog kat du lëf duy jéema dog du ko man te may nu dooley saxaar ak wér ga nekk ci doj ak way gi jant di way ci penk man nga yéwén maa ñàkk lépp nga am nag lépp maa ngi fi yow di seenu lépp li may bon bon faral na ci man saxal nu ci mucc ak wér ak njariñ ak yiw te at mu ñëw nanu yokku jub te teewe déwén bëggal nu ren ak déwén ak mépp at mu mu jëm te may nu nun ñépp nuy yokkoo ka fekke déwén sarax nu malaanum cant ak sutura ak yiw te boole ca mbubbas ndolla nag tubay ak ngërëm sarax nu malaanum cant ak sutura ak yiw te boole ca mbubbas ndolle nag tubay ak ngërëm te takkal nu néegu barke ak jàmm ak njariñ xaral noote baaxit mag nu ndolleen lu am xoram dangaa saf te say wax saf sa jëf saf nga njax la fit te boole ngor ak njàmbaar ak tabe doo te xam dangay jënn waajoo xam ni boole nga ñépp not ba képp ko nangu dëgg jébbal na lay biram yoral ma samay mbir ak mbirum ku ma jox mbiram te dox sunu digg ak jépp lor ak moy ak tilim te def muy murit yooy sant saw yu dul tawat yu deeful tawat yoo xam ni faggul nga leeni ndam sunuy pexe ak mboolem sunuy bir a ngi yoral te may nu fexem baatin nu juru munu dolli gëm te yàkkal nu yàkku mbég bu yéemu bu sedd xol bu tax ñépp ñeenoo ñee ba ñoo ni fi nun goram safal nu ci yow mi may nu xet gu bawoo ci yow gu ñuy jóg di bantum réew kum réew a kay xalam safal nu ci yow mi may nu xet gu bawoo ci yow gu ñuy jóg di bantum réew kum réew a kay xalam safal ci nu nit yow mii nu saf la nga saf nu nag nu far di sa ñam woo xam ni moo dàq wépp ñam doxal suñu digg ak lépp loo xam ni lii di yow te boole nu faw ak yow dugal nu ci saw yaram dugal nu ci sa xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fan may nu yërmaande ak ngërëm dugal nu ci sa xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fay mel yërmaane ak ngërëm sarax noo te mbég muy tax ñu bég ñu sopp bég ñu nuy bañ di ñu ramtoo ka yuuxoo ka miccitu sarax noo te mbég muy tax ñu bég ñu sopp bég ñu nuy bañ di ñu ramtoo ka yuuxoo ka miccitu xëyal benn bis ubbil ñu bunt bu sedd xol te jox mu lu mbooloo mépp bokk di làngutu te dundal sunu diggante leeral ko nag na ñax notal mu fu nuy nekkit ba kenn du fa yëngutu tabax noo ki doj ak weñte boole ca farsinu nu def fekk tabax goo xam ni ñépp da koy moytu te def nu tabax goo xam ni waaju ca dal ni woy ku may wallu dee naa nag sama refe ngiy watu musal nu ci fett ak toj ku nuy bëgga toj na toj rajax xel ma dee muy dox di wax tooka jabbutu musal mu ci mboolem lor ju nekk ak ju dikkagul ku nuy bëgg a randal lëf na mujj di randutu ku bëgg nu toppas lëf na topp ca àll far nu gën faa amul yaatal ñu far gën nu faa watu ku nuy jëme lor delloo ko lor jëm mu jël te muñ bu lor jëm ci ñun yaatal ñu boole nu it saytu faral def nu gàncax nun gu la fi wéddatul gu sax bu am mbay te teggiw mar akum ndog akum natu saxal nu bu wér yow loo saxal loola sax bu wér ku bëggul nu sax nay suufe faw ak a bokkutu te yal na nu gudd fan su nuy soppe gudd fan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci tee nu meccitu te yal na nu gudd fan su nuy soppe gudd fan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci tee nu meccitu ma dimbali koo man yàlla ay yonnenam ba tey ba sant Sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw ma dimbali koo man yàlla ay yonnenam ba tey ba sant Sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw defal na ma luy waajur mënul yal na am lu rëy lu seddub xolam foofee mu nekk lu ñépp naw te yal na xolam sedd ci nu ñuy mu wacci dem te yal na nu wacce ngéñ mu tax ñépp ñëw nu ëw te yal na mu cantit ci nun ñi mu denc fii te yal na nu wacce may gu tax may gu népp ñëw te yal na ko yàlla i xëpp yërmaande sépp saa te teeyal barab yépp ak sunuy xol xelaw xelaw fabal yàlla jàmm ak yërmande ku yiwal njëriñ joxal mu sëriñ tuubaa ki tax ñépp xam la yow fabal ngërëm ak jaaraama joo xam ni dootu deñ joxal mu sëriñ tuubaa ki yee ñépp ci nelaw fabal cant cant ak ndég yu ëppum xel ak xalam joxal mu sëriñ tuubaa ki tax diine xëy taxaw fabal may yu deeful takk kay tandaleeka lim joxal nu sëriñ tuubaa ki tee ñépp rus ba sew fabal ndabi tawféex ak tiraanga yu feesa ndég joxal nu sëriñ tuubaa ki tee ay wënekk xew fabal fal gudul dañ mukk mukk te dootu nax joxal nu sëriñ tuubaa ki tey fam mu teg ca kaw fabal lépp luy tooyal xolam ak lu koy teral joxal nu ko fawwa ndam te may nu ci moomu yu fabal lépp luy tooyal xolam ak lu koy jaral joxal nu ko fawwa ngam te may nu ci moomu yiw ñu mbooloo mi xam tey jii ni yow ban balaa gërëm te yow rekk laa santit te yow rekk laa faral ñu mbooloo mi xam tey jii ni yow ban balaa gërëm te yow rekk laa santit te yow rekk laa faral te yow rekk laa àndal te yow rekk laa safoo safoowuma bàyyi ndey safoowuma it alal danaa weesu bàyyi ndey te weesu itam alal ba ñoo jox la saa bopp ak sama jur nga boole jël damaa boole mbooloo mépp teg fële ñépp yow nga jox ma lu gën mbooloo péréj ci du man asal lafaat ak lafaatul lépp fam nga ko jox ma man ci sag tabe yow yaa mat di jëndee la kay dëggal fegal ngam fegal ngam mboolem luy lor ak lu amul njëriñ te ñoddil nga nuy cant ak njëriñ yaa ko seddu xol fegal ngam mboolem luy lor ak lu amul njëriñ te ñoddil nga nuy cant ak njëriñ yaa ko seddu xol sarax mu sarax mbooloo mi gudd fan ak wérug yaram ak lu muy jaamoo ka sante di aw ndigal notal nu mbërëg xiibon notal nu sunuy bakkan notal nu ndaw ak mag faw yow note kat notal notal nu sëriñ ak ceddo ak jinne not gu wér musal nu ci saytaane ci fiiram ya muy raxal notal nu sëriñ ak ceddo ak jinne not gu wér musal nu ci saytaane ci fiiram ya muy raxal saxal nu ci mucc ak jàmm ak xol bu sedd nun te dal nu naataange ki cant ki xel ñi dal lu neexul na nuy mooy faw te mooy ñu nuy jëfal lu sopp nañuy dal faw tey dal ñu nuy jëfal lu dul mbég bu nee ñokket na teg gi sunuy barab te moy nu te moy mboolem ñi lay soppa kay teral raxas naa samay dab jox la yow ki ma daa duyal duyal naati saada bii ba ñuy rem ba tey njëriñ raxas naa samay dab jox la yow ki ma daa duyal duyal naati saada bii ba ñuy rem ba tey njëriñ mi yépp ni dell ak barke faw ak mbëggal ngërëm badag yii ma dendal sax mi dell ak lu am njëriñ jagal nu lorañ ak fal nu nuy bañ ñu tegg yi tafar dañ nu am ko am ak wérab dund ak njëriñ na mboolem lu ñuy wut am fi nun faw sax fi nun ba koo gis di jàngu yiw fi nun faw ak njëriñ bu saytaane ak lor jëm ci nun mukk fenn saa bu taw féex a kub jub jub fu nun mukk am njëriñ musal nu ci mbind ak gémmiñ ak yépp ay yu jóg te dox sunu digg ak lépp la fu lu amul njëriñ te xam ay mu jóg yàqal ku jóg yoru ay di ñëw balaa ñëw na dëppoo ay wa dëppal lu dul njëriñ te xam ay mu jóg yàqal ku jóg yoru ay di ñëw balaa ñëw na dëppoo ay wa dëppal lu dul njëriñ teew ñii la nuy làqoo baraw nag lor ak lu bon te jot ci yiw ak sa cant faw ak ngam ak njëriñ ñegal wër mu kooñ ak wër ko mbàkke xelam ma dal xolam sedd ngir dootul fasee ku mbég ak njëriñ dugal nu ci sam ñag ñun tefal nu ci biiri mbég xañag dina muy wër kapp faw ak sunuy njëriñ dugal nu ci sam ñag ñun defal nu ci biiri mbég sañag dina nuy wër kapp faw ak sunuy njëriñ sabar kene ànd ak moom te nekk ci nun bu wér te mboolem lu nuy yëngooti nuy tono ak njëriñ bariñ te barke alal sunuy jëf te dolli nuy karaama yu làmboo may yi dul jeex ak mu njëriñ ma jóg yeesalu cant ak ngërëm moo rafet ci man damaa gis ñu gépp cant war te ñu suufe ma ma jóg yeesalu cant ak ngërëm moo rafet ci man damaa gis ñu gépp cant war te ñu suufe ma ñi fab seeni mbir jébbal ma faw bu ñuy gërëm di sant ko xam ne nii na may def ba sant ma te xam naa ni yàlla am ci man yërmandeeku yiw tegal na ma bépp coono fal na ma yor na ma tegal na ma bépp natt jox na ma ab sëriñ bu teddag njabootu cant man yàlla wëcc ma rafet naa ci moom it njort xam naa ni man na ma defar ba ma jag baaxal ma sellal ma sàmm ma damaa feesa feesa damaa feesa kuk ban dell dell ak lu ëpp wax mu feesa ngëneelam dell dell te jublu ma danaa feesa kuk ban dell dell ak lu ëpp wax mu feesa ngëneelam dell dell te jublu ma damaa ñàkk ñàkkit lépp lépp baaw ma lëf mu am nag ba ñàkkul lëf mi cas yëf ya xëpp ma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey jii man fi dee woo ma wopp ma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey jii man fi dee woo ma wopp ma te am na ku juddoo juddu faf rekk dal di dee ñu suuli ko faf réeréew turam li le bir na ma dangay gis ku faf sax dee ca biirum ndeyam ba cëy ñi xajjil ma yii yépp ak yu dul yii xëñeefu ma xëñeefu ma wërsëg man xëñeefu ma wen yiw wéreefu ma yal naa sant yàlla mu sant ma te yal na suñuy xol sedd bu yii mu judd fan téer topp mboolem gaa yi yàlla ñi sopp ma ci bunti bi laa xel seeta nekk ba dee fi man te loo wax wax ak loo noppi noppi no sax fi man ci buntu bi laaxal seeta nekk ba dee fi man te loo wax wax ak loo noppi noppi ma sax fi man fegal ma ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te doy lul ma wëllis gaa yi bon yépp ak yi gën faral naa ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te jublu ci yow faw ak sa bunt bi fal ma kun te def ma ku yokkoo yokku yokku guñ yépp xam musal ma ci gépp jëm gannaaw ak lu jëm ci bon tamay nu ci sag tab yaari ajjana may gu wér naam jur gu dul xaaja ngërëm sut ku nekk fan wéral nu ci yow ci nit te may nu wér gu yaram ñu ëpp ci nit ñépp xaalis ak diine saf ca man te àddina ji mboolem ku rëy ku ci dee fi ñee na wàññi ku ñeenoo ñee ba jébbulu faf ci nun bu bis pëñ ci baa mboolem ñu rëy ñi fa dee fi ñee nañuy ñee suñuy dongoo ka làqu fi seeni ron tëtin ma ci saa bopp ak ko jàpp ci man bu wér tëtin ma ci ñéppam def ma faw ko dee fitin te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tafar seeni moy yépp ak suñuy nuy fegal nu fan te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tafar seeni mooy yépp ak sunuy mooy tegal nu tan yërëm nu te nangul mbay mi nangul lu jépp jëf te nangul li nuy ñaan ak li nuy jox ñu nuy gëtën musal ma ci bépp nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma gépp teggi teggi ci ñu sës si man musal ma ci bépp nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma gépp teggi teggi ñu sës si man bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko noppil ba gis lu mat a wax nga wax ko yow boo ko gisul nga bàyyi kon nga amul yiw yow boo fajul dara na ngay faje dara boo tekkiwul dara na ngay tekkee dara fajal sa bopp door a jóg faji dara tekkil sa bopp door a jóg tekki dara sëriñ bi tey lu tee ma faj fajal ma ko lu tee ma tekki dara it tekkil ma ko xam naa ni maa bon te xamit ni maa xayib xam naa ni yaa di kay fajug bon ak ayib xam naa ne xew ma lëf nga xam ni xew ma lëf ma xam ni xam nga lëf nga xam ni xam nga lëf xam naa ni aw ma lëf nga xam ni aw ma lëf ma xam ni am nga lëf nga xam ni am nga lëf xam naa ni bëgg naa lëfit nga xam ko ma xam ni man nga maa joxit nga xam ko te maa ngi nii di la dagaanaka wayaan sarax ma lii ma lay dagaanaka wayaan jugal ka dem ku nar a dem dana la jot moo gën di waaree ka xuloo ka woowu nit jugal ka dem ku nar a dem dana la jot moo gën di waaree ka xuloo ka woowu nit waaral sa bopp yow te waarit ku la jot ku la jotul bàyyi ko muy def la mu jot yàlla laram bu mu fasoo jubal mu jub bu mu fasoo wula jubal booba du jub yonen ba jum na ku ko topp jum na seytaane bon na ku ko toppit bon na sëriñ bi gën na ku ko toppit gën na mbiram miit jum na te yaana wér na bind na wax na def na digle aw yiw ku jekki nag mel ni ku tax sa bopp yow ku réere yàlla réere waaye yàlla moo jaa ku koy ram mu ëllëg fa yàlla ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bu mu ko xul falaayam defar nga kër gi gépp tey géppub defar gaawal te toppi ko ndigal balaa xar defar nga kër gi gépp tey géppub defar gaawal te toppi ko ndigal balaa xar kër bu xaree te xam ni kenn toppiwu ko ka ko defan waxtu wu dee jóg yanu ko sëriñ bi nun fegal nu gépp muy ndigal fegal nu it yanu kër ak gépp mbugal yéene na noo mel na nga bëgg ku na mel may na mu mel melow sedd yow sa xol sa xol bi buy sedd sunuy xol sedd yal na sa xol sedd sunuy xol sedd sedd nga mbàkke sunu xol yi guyi yal na nu sedd faw sab xol guyi am nga sunuy ngërëm bu wér yal na nu am nekk ngërëm nu kenn musula am am nga sunuy ngërëm bu wér yal na nu am nekk ngërëm nu nit lu kenn musula am yàlla na yàlla séq séq saw fan yal na nga séq séq yit sunuy fan muy dund ngay dund sa xol bi sedd sunuy xolit di nux nuxee ka sedd addina jii bu nu fi seeru wenn ay fanu jëmit bu nu fa gis lu niru ay nanga nu may jànni teeg ëllëg nun te bu nu gis teeg ëllëg dara lu bon fegal nu loo bëggul ba dootu dikk lu yàgg yàggati te may nu gi yegg féqal nu it la nga gërëm ba dootu dem lu yàgg yàggati te may nu lépp ndam man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñoo am lu rëy ku ñu may nga xam loo jortuul man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñoo xam lu rëy ku ñu may nga am loo jortuul ban baa ci gaayam laa fasoo yalwaani tey ndimal ak yi barkee ki yërmaandee ki pal yow ban baa ak barkem ñi lay jox seeni mbir ak seeni jur ak seeni doom ak seeni xol def ma murit bu la gëm bu dul yokkat ci yow may mag cofeel ak itte faw ak aw ndigal bu ma soxla woo bu ma itte woo bu ma bëggaam ndare loo ma tànnal yow ki xam ak loo dogal def naa la ndey def naa la baay ak ab sëriñ def la xarit def naa la kër def naa la njël nekkal ci man nekkal ci man bul jóg ci man bul jóg ci man dëkkal ci man far may bëggal jàppal sama xol ak samay cër boole far tabal ci gaalu kenn samay num xel mu dal dalalal sunuy xel leeralal sunu xol bu wér leeral sunu diggante nuy jub tey jubal yaa doy lu may nog doy lu faw wa yëf yu doy doy loolu mu wëllif ñépp ak seeni alal saa dund gi may dund may dund njariñ boo xam ni moo gën ay nawet gën ay kuréel ni nga guddalit sama fan yu may mag pal gu rëy ci sa barke ak barkeb sa gaa yi leen lay jëfal mboolem ko lay yaakaar a koy wut say ngërëm may koy ngërëm ak mbëg mu rëy ñu ñu féenuwul ci sa barke ak barkem ñi lay wóoloo ko gëm giñ naa ni laa séenuwul rëy lu ma jotuwul loo xam ni daanaa ko sàkkoo koy dagaanaka wut lu dul sa jëmm ji loolee maa ngi koy tuubi loo xam ni daanaa ko sàkkoo koy dagaanaka wut lu dul sa jëmm ji loolee maa ngi koy tuubi lu dul sa jëmm ji loolam ndog la rekk mu rëy te bëgg lëf lu la mooy ak mooy la naa tuubi ak lar bu bëggee lu dul sangam ba ak ndigalam ak mooy la bëgg ku bëggum mooy nafar tuubi tey maa ngi tuuba ka sàkkoo mel na sedd sa xol fasoo na maa saxalit sa toppakub tuubi mboolem ñi ngay fare naa ko tuuba kub rafetal fasoo na maa tàmbalik sellal akub tuubi yaa set welas mosulaa dox sax fu tàkk lu bon setal ma ngir yàlla man nii tàkk bay tuubi defoo lu bon mosulaa def benn bis lu warul te waa ju dul yow defoon nas lëf lu muy tuubi kenn mas la jox yàlla àqam benn bis ndara yow gin naa ñi gin naa ñi wax ji soxlawul tuubi yaa xëy ñi domm ngërum yonen ba tey wéewéy ba yegg rek ki nga del ci yóbbu kuy tuubi moo tax fuuteeti ak yow kooka am ci lu yiw mboolem ku jum mooy la tey moo def lu jar tuubi mu ngi ci say loxo mel ni gumba yóbbu nu nun ban yegg yegg ba delluy andi kuy tuubi mboolem sunuy mbir ngi jàppal baa jana yow bu yor akay yéwénal nuy sant kay tuubi damay nu ak way ci yow ñuy way ba jiitu ku way wayal nu deng ba kuy way fu mu gis tuubi rëcc ñu àddina ñuy fawit ci xol yi bu wér ba kenn du xëy itewoo tis lëf lu dul tuubi àddina ñuy tekkiwul lëf waande nag li waral mboolem ñi gën di ci soxlaf lëf akay tuubi kuy rooti ndox rekk lay wut waande day wuti goj wut baagamit door a jóg jëmtee na kay tuubi mu sàkku ndab sàkku baaga goj baam te jógul daw rooti moo bëgg duniyaa ji ni faxa tuubi kuy wut alal ngir fasoo koo toppe nag bakkanam yàllaa ngi gis la mu fas ay ñoo yeyoo tuubi ku nekk yàllaa ngi gis nag fas fasam ba mu fas ku fas lu bon na ko feccee jooyakuk tuubi ngir yàlla kenn mënu koo nëbboo këréer ak war lii tax ku yeewu di fas aw yiw akay tuubi luy dëgg nit ku am wér sant daal ko war ngir nit bu woppee du tëllëf gaayi nan tuubi ku làq gën làq ak wér am na lépp lu gën te kat defeetul lu dul ak cantakug tuubi te donte àddina jéppit yaa ko yor te wéroo nga fab ko lépp wutal ngir ay na ngay tuubi kuy bëgg lëf dafa am ak wér ndewaaju amul ak wér du bëgg lu dul ak wér na muy tuubi te ndaw su koy sol yéeree nit ba wopp fi bis nga gis musum ni ko jënd ak wér na muy tuubi góor ak jigéen a fi yam kenn soxlawul ndare wér moo tax ku am wér na farluy sant koy tuubi alhamdulillahi rabbil aalamiin na ni taxoo fi cant ak récc mooy akay tuubi alhamdulillahi rabbil aalamiin na ni taxoo fi cant ak récc mooy akay tuubi yow ngeen ji wéttalu bët te ngeen ji wéttalu xol nekkal di wéttalu saaba taw ak sama xol te doonte waa penku ak waasoow ñëw nañu tey ànd ak manit bu ñu tax njëg tàbbi sax sama xol saa gët yi may gës yow saa xol dinay gës yow saakir bu nekk na lay dégloo ka daw ci ndigal bu ñuy dee denc ay soxna ka fàggu dugub di jëndi fas ak a war tey dox di denc alal naa denc man sa ngërëm tey fàggu naa sa ngërëm tey jënd it sa ngërëm yow mii te jàpp la jël naa raw ñi lay sopp raw mboolem ñi lay jox yëf raw gaa yi lay jëfalit raw gaa yi kenn jotul te jox ma nag itte juy jëm kaw li kaw rëy rëy ànd ak wér ak gudd fan ak ndimmal ak rafetal sakkal ma buntu bu lépp xalfee te dox di ma lor te may ma nag lu ñu may soppee ka ñuy yërëmal yërëm ñu jaglemu yërmaandee ki yiw te dogal sunu lu sedd sunu xol faw ful mu tefal bari ñu yokkul mu biir ak biti ful mu biir tefal mu tund ngërëm ak barke faw defal may nooti jox nooti sellal nooti yeeti nunu yeete ngërëm ndax nu far gëm laat yaa nu soxal ba ñépp nay dolli koo kay jëm kanam bu rafet tey tii yokku nit ñi sante jëf ak i xol ma wax fi ahmadu fekku dénk tey jile na ndax yàlla boo leen jox aw yu fegal nu mbugal ma jox fi ahmadu sekku dénk tey jile na ndax yàlla boo leen jox aw yu fegal nu mbugal te rikk ahmadu déglul lii ma lay bëgg a wax njegam danga bëgg a gën say kam wéyal ci ndigal bëgg a gën ay kamam day tuubi mooy bàyyi mooy te jàpp ab sëriñam màggal ko jox ko alal sanin lu dul yàlla yow mi jàpp yàlla bu wér te nit bu boppam ba weexee kat mu yàlla ragal jàppal juróomi bayit yi faw maa la ko jox te am sa too la ko sàkkul ngir yem nga fa bal sëriñ bi mar waa ngi nuy jàqal fajal nu ko nag na taw bi dikk te ànd ak yërmandee ti juréy waxal malaaka ma yor ndox mii mu dékkee nu tey ngir jëm ni yàlla ji ak yonen bu waa nuy rëy njëgam sunu moyatee muy dox di xëy naka taw yow yaa nu jiite te doo def lenn muy nuru moy masamba sëmbul ci géeju ban ba sangu ba set tey xuusa kay wéy ba fer def waa ji yegg bu julab masamba sëmbul ci géeju ban ba sangu ba set tey xuusa kay wéy ba far def waa ji yegg bu julab xuusal te wéy dëgg bul gàccal sa tér bi la yow ba noppi nag te setoo kuy wàlli làmb na ub daasal sa itte mu ñëw bay mel ni geesi juwat ngay dagge ndog yi ni law bay dox di dagge garab melal ni gaynde ku mel ni gaynde kenn du la dog ngir képp kuy doge day daw gaynde mooy fu mu sab doo seeru ngën ji murit muy jóg di waaxu di wéy ba jongamay bari man man nag ba jóg di ko dab doo seeru ngën ji murit muy nekk fenn di wax ba jonga may jóg di foo koy jëm fa booba barab ngën ji murit fu mu jëm seytaane dootu fa jëm te jonga maa di ndawal seytaane ay bu ko nat loo xam ne day mujj na bis loola yow bu ko nat te jépp jonga ma joojis leemu medd ba nëpp sëlsël jëmuy dëkke ak bun bun ja yow bu ko gis seetal ba muy nëbba sax yey yàpp lex ya xajab bul gis lexam ya mu naa mes mes ba tax nga ni cas sayit te jox ko ko kon boo dee sa lay wadu jub jigéen a dog gaaya daawut yàlla maa la ko wax ngir moo di fett nga loob seytaane yow bu ko jub dangaa amew sas te yow sellal ko rekk la war bul génn sas wi di wut añ lee nga seeru sa ndab di jaamu yàlla bu wér tey toppatoo ndigalal sëriñ bi sas waa ngi nii kat bay ko yow bu ko tëb liy doy na wëllëre jàppal wëllëree ngi wuréy masamba sab dénk ngi santal ma yàlla te fab wéyal bëggee jig sëriñ bi far la wan na tërëf nga far ne meññ ba nee faa bàcc ci wéy na balab tey làmb jaa ngi di gor koo seeru nag mi ngi tëb ngir bëgg a ub yóbbu ndam yal nan ko ub te nga ub tey lamb jaa ngi di gor koo seeru nag mi ngi tëb ngir bëgg a ub yóbbu ndam yàlla nañ ko ub te nga ub bañul ayib ya ngay yër yow te yër sa ayib ayib ju dul sa ayib jooje ayib du la lor bàyyil ayib yi la ngay yër yow te yër sa ayib ayib ju dul sa ayib jooje ayib du la lor ndegam danga amatul nag jenn jenn ayib santal te koo gis ayib bul tudd yow bu ko yër koo gis amul ayib it buy tudd dal di ko am koo gis yorul ayib it buy tudd dal di ko yor ayib dafay wàlle biir ak biti wattu ko yow kuy dox di riisu ko njàmba léegi léegi mu bor ku jàppul njaamuram bay tudd nag sa ayib gërëm ko fam na nga neelam jox la yóbbu sa lor sëriñ bi ak darajay yonen ba ak darajay saxaaba yépp sarax muy fan yu gudd ak ndam sëriñ bi ak darajay yonen ba ak darajay saxaaba yépp sarax muy fan yu gudd ak gëm suntii si dund yi ak suntii si dee yi fabal joggaaya dul nun te may ni jàmm nun ak ndam suntii si tey ak ëllëg fam nan ko yépp sarax ku lay fexee lor akay dem foo bëggul ku fa dem fabal sa lor ak sunuy lor yépp jox ko mu wépp nga yor sa lor ak sunuy lor boole koo ki loram lu nuy tawat léegi biir ak biti boole ko fab ak nun xaloo tawatit tabal ko lépp këram buubal tawat yépp ak lor yépp yan ko muy na bokk luy tax mu woppit yóbbaloo fu mu jëm mboolem lu bon lépp ak luy tax lu bon di lu dal may nan ko kuy sàkku sag suufee ka jëw ku la gëm nan jàpp tànk yi ak làmmiñ yi jàpp gu tar ku def nu dul nii ma wax day dal di loru te loru nan jàpp tànk yi ak làmmiñ yi jàpp gu tar ku def nu dul nii ma wax day dal di loru te loru te waxtu yi ndaw lu gàttum xel lu kenn yërul moo ci wëreeloo ko wax yeewul te dal di yaru jekkil sa kër jàpp sa njaambur te nëbbu bu wér koo seeru muy doxa kay wax ni ko yaa ngi xaru doxkat dafay yenu lor yit waa barab ba mu jëm bu ñibbi fab lore ñooñee yóbbu far akaru doxkat bu yóbbu wuli lor dellu seeki loram moyul ma ab doxa ku doxkat te def ku yaru dox am na kat njariñ ak lor waa ndefam njariñam ba fay loram te na jàppul ndax nga far defaru koo xam ne xam nga sa lor xam say njariñ mën a daw sa lor te fab say njariñ dox dootu tax nga loru boo mën la xam ne sa lor ak say njariñ mënulaa fab say njariñ daw sa lor jekkee la war te beru bul toppandoo gaaya man ndox kon ñu mucc nga lab bu roy te gaaye mënul ndox kon nga moy te xaru tuubal te wammatu sànnim xel te jàpp ndigal te jaayu ay jënde ko yiw kon te doo asaru jaayal sa dina jëppit jënde àjjana yow jaayu gi yaree diku jënde bi yar te dal di yaru jaayal xiyaasa ki xam-xam jënde def lu ñu wax jaayal kañaan ak rëy ak xër jënde ak defaru ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk ñu fi ñun ñépp yal na mu teewee te ñëwam bu rafet déen te fekk ñu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na mu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ñan mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na mu fekk ak may gu suuxali may te fekk ñuy bari tew féexal ngërëm gañe fi buy del si yàl na mu fekk ak topp yàlla gu wér te fekk ñuy dolli ko jub wépp yiw daje fi buy del si yàl na mu fekk ak doole ak ñu ko am te fekk ñuy mbërum not mbër yépp faf tane fi buy del si yàl na mu fekk ak doole ak ñu ko am te fekk ñuy mbërum not mbër yépp faf tane fi buy del si yàlla na mu fekk ak yàlla ak ngërëmam te fekk muy gëm a gëm yokkoo ko am lu jafe ganum njëriñ ji li muy xalfee te ñëw ci kanam ñu ñëpp yal nanu koy teewee kasant ne fi biir bii nuy dem akay ñëw noo gi nay dem akay ñëw faw nuy sellalu jaamoo ka xam di jëfe ñun ñëpp yal nanu wàccal ñëpp yiw wu mu am ba ñëpp naa bu demee it aw yiwam jógu fi ñun ñëpp yal nanu wàccal jëpp yërmande faf ba ñëpp naa bu demee it yërmandee ma ngi fi yow gan gi leemunu leemul bii barab soga dem ba fenn seytaane dootul dox ba fekk nu fi xam naa ni ak ñàkk maa doo bon ci lëf jëru ko lu dul jariñ dara tey lor kay ku xam bàyyi ko kuy bëkk néegu lu muy jagloo ka sàcc ka mus du faj lu dul yët ko ay wàññik payam lori ko di sàcc kay mus ci loo moomul xamal ni du faj say aajo wér aajo sàccal mus asal faju ko ak bëkk néeg ak i géej ak teen ak i dexeyam kuy bëkk néegu bu toppee bakkanam alaku ak bëkk néegu ku koy ngéejoo ko daw di ca jëm ab dof la rekk nde ak dex nit du daw wuti ko kuy bëkk néegu bu néewul jar yewu bu wér te def ku sànni cëram ay dal ko yiwu sori ko koo xam ni day seeru yëf yoo xam ni moomu ca lëf te bëgg cës lëf bu baaxul far ca mos moy ko sefeer sëriñ moo ca tàddee rekk génne na yow bul génn cës lëf lu dul loo xam ni jox na la ko sefeer sëriñ loo ca gis ak kër gudul këram it mu ñëw baam ca ndigal moo gën nga jalgati ko loo gis lu sew sew bàyyi ngir lépp loo mën a fab lu sew sawit dal di rëy ak may du tuuti ba ko loo gis lu sew sew bàyyil ngir lépp loo mën a fab lu sew sawit dal di rëy ak may du tuuti ba ko murit wu dul sopp ab sangam te jox ko xolam akub juram def la muy wax daw meram waru ko astuukar ak warga ak lem ak kafe ci dërëm ak lépp lëf mu la neexul fab ko sàggane ko kuy bëkk néegu juróomi yëf gënum ci mbiram sa teg dox ak xoole ak digluy wax ak feni ko farlul te roy nag ci jibril ak kemam ya ca kaw kuy bëkk néegu ci ñii lay roy te dégg nga ko malaaka moo maandu moo am ngor te sell mbirit du fen du nag ci lindeet am xelam daju ko malaaka moo maandu moo xam ngor te sell mbirit bu fen du nett li ndéet am xelam daju ko malaaka yépp dañuy def tekk diglu ndigal lu yàlla digle ñu dal cay maase jóg defi ko malaaka menn du jóg def lëf te xam ni ndigal ñëwul ndigal du ñëwit nuy deeti néggandiku sëriñ bi dëgg defal ji koy malaaka ci nun ak gëm ga ak yar ba ak kattan ga yokkinu ko ak wér ga ak way ga ak sellam ga ndaxte mu am saccant yow ñàkk am saccant lëf jëru ko bu nuy dem ak bu nu jekkee yàlla yaa ngi fi yow te dénk naa la ginnaawit ak kanam taxawal kuy tukki dénk la boppam ak këram dana dëkk ci boppam ak waa këram noongoogu far mu ñoŋal loo nëbbu dee su ko gis loo saytu dee su ko fab loo denc dee fu ca dem koo wattu lëf du ko dal doo gëm doo xefte doo sàggan faroo di nelaw doo fadd doo wuute lëf luy am nga yëg musalal lu ñëw ci moom te du jàmm sant wàññi ko far mu dal di jëm ci ñeneen xañ jàmm kay xadadal te def nu xejjub sëriñ tuubaa bu sedd xolam bu koy bëggal faw a kay reeloo ka saxa ci ndigal ubbil nu wën ci ndëgëm tàbbil mu néegi ndëgëm sunu diggante bu fus lëf am lu koy tilimal ubbil lu wuntu ndegam tàbbal mu néegi ndegam sunu diggante bu fus lëf am lu koy tilimal te jàpp naa sama digg ak ban ba dénk la nag leeral ko neexal ko far sellal ko far ko jubal fu ñuy nuyoo na ni teqat ree nu bokk di ree te bokk sant mu seddu xol seral sunu xol def mu laram def mu ab soppeem akub xaritam def mu loxoom it bu muy tibbee ka sex di sexal def muy gëtam faw ak i tànkam te boole nu raw ni goñ nu def kenn kuy rusloo juróomu kurél dexum xolam fawa kii noppam yu dégg ndigal te may nu nag ci ngëneelam ak way ak rafetal te def nu boppam te def nu làmmiñam wu rafet mboolem lu muy aaja léppit naa ko cay taxawal bakkan bi nee na ma bis moo tee nga tukki te woo nit ñépp kon danga am aw nit te doy la alal ma dal di rus te torox ngir gaaya daa daw nit tey bañ alal ak a nëbboo tey yërëm te lu njël koo xam ni kii la ko war kon wàcc ñépp ni mes bu mën la def loola it wootee ka tukki warul njëgam dama bon ba mboolem nit ñi gën ma du tee may sopp gaayaa ka waxtaanee ka wax nañu mel gaayaa ma saf ñoo ma duggit ñoo melit na ma saf seeni wax ak seeni jëf waamee njariñ la ci xol koo gis ñoom a ngi def duniyaa ni nit du mu nëb di soxlawoo yàlla ak yonen ba tey rafetal ñoo dund ñoo dundi xol ñoo tax ba bépp jullit xolam di dund ba tey yi gaaya sotti asal bul wax ni man bala maa waxtaani mbër ya di mbër ngir kenn du judd di mbër wax jaa ngi nii xalama kuy ruuja kay bay dafay waxtaane dàgga yu rëy ndax dàgga yoo yële ñoo koy soñña kay sawaral waxtaana yàllaa ci gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca la juddoo yow murit bi yëgal waxtaana duniyaa ci gaayam bon bu nit masa bon yëgal ni ca la juddoo yow murit bi xamal boo mën la def yow lu baaxit dee ko bëgg a ko wax bul bëgg àddina bul wax wax ju génn ndigal bu kenn dégg ci saw làmmiñ lu dul wax yiw bul jóg sa kër ngir wutil nit rekk mbaate alal musal ñu ci dee faw ak loram yow ki bind dee teer mu fi nuy jaamoo ka sant ba àjjana musal mu ci dee faw ak loram yow ki bind dee teer mu fi nuy jaamoo ka sant ba àjjana lu dul jàmm biir ak biti yal na mu ump nun te yal na mu lumpit lépp luy mbég ci àddina te yàlla na mu far mboolem lu di wiiw teeg ëllëg ñu na lum di xoolee kay gërëm yàlla sotti na bu ñuy dox ba fii rooteeku ay mukk fis mbarab na nuy mucca kay juuyoo ko ay man gi landi na bu nuy mën a jëm ciw ay bu ay mën a jëm ci nun naay teggi biir ak biti ay wépp teggi na bu lor ñëw ju jaamu yàlla def mbaa ju yàlla def defal sunu lor loo xam lii ak amamte na defal ñu ci barkeb gaayi ka fi sunuy nelaw mu gën wird fapp ak julli goo xam ni sell na te may nu ci barkeb gaaya teewe badar te muñ karaamaake ndam yoo xam ni yéemu na dëkku na te may nu ci barkeb dépp yonnan sa kuun itam lu yombul lu rëy loo xam ni waare na màgg na te may nu ci barkeb dépp sang ki gaayam it ngërëm dëgg loo xam ni faram ngiy na jomb na te may nu ci tawféex ak malaaka mu aw ndigal wilaaya gu wér goo xam ni tandu ga ëpp na tër mu ci sag baax ak saxar baaxi bopp nag nu des fi di dundal diine rekk ba àjjana dangay may rekk wiiw ku ñuy dégg yaa ko may te yaa may ku ñuy gis ndolle nag may gu sedd xol dangay may rekk wiiw ku ñuy dégg yaa ko may te yaa may ku ñuy gis ndolle nag may gu sedd xol malaaka yi ak yonent yi yow daala tax ñu am lu rëy lañu am baaxal nu may nu ci ñoomi pal saxaaba ya ak mboolem wali yi yaa waral ñu mel ni ñu mel faggul mu taw féex akub jubal sëriñ sépp sépp ak seeni taalibe yaa waral ñu raw seeni kem jël ndam faral jox nu ndam mu jël ñi xam ñépp ak mboolem ñi am ñépp yaa waral ñu xam am te sikkool yi ma lay wax ku lay manal fulaf nekk yaa tax ñépp ndab lañu koo ci duy mu feesal njariñ feesal mu dell ak lu nuy dëggal danoo bég ci yow ngir bind gi nga nu bind nun ba noppi xamal nu su lëf ci yow ak ci sab dogal gërëm nanu ngir sax gi nga fi sax te doo fi jóg ni den nag sa nguur ak say njariñ ku la saf nga fal asal yaa di buuru dëgg dëgg bu ñépp xam jógoo fi ma soo fee jóg te doo fi jógit asal lu man di xew ak luy am te di woo du wenn ay musal nga nu ciw ay faw yal na nga nuy musal lu dul mooy la rekk ak yow mu dee jàmm laa ku yiw fegal nga nu sag dee fel mu it bu mu ñëw fegal nga lay mucc ci mooy ak lu bon ñu ngi mucc yow ci wopp ak dee sàkkul mu xar baaxi ndig yutal te mboolem lu nuy jañ yal na dem dem gu sedd xol lu nuy ñoddi léppit yal na ñëw ñëw gu sedd xol la yàlla xamoon ci cant yal na ko boole fab ñi xëpp sëriñ Tuubaa seral cab xolam gëri la yàlla amoon ci cant yal na ko boole fab ñi xëpp sëriñ Tuubaa seral cab xolam gëri te yal na ñu yëkkat xeetu ndegu ma tee fa xam ñi xëpp sëriñ Tuubaa fa bu mucc faf ceroo te yàlla nañu sojjat jàmm ak yërmandeeku yiw ñi xëpp sëriñ Tuubaa merum ku ko sopp giif te yàlla nañu des xeetu njëriñ wone ak ngërëm ñi xëpp sëriñ Tuubaa mu faf gañe ñépp fuuf te yàlla nañu deñet benn dog bu ñu naw bu rëy ñi xër sëriñ Tuubaa mu far jël dogam bu duuf te yàlla nañu ñokket sëq ay may yu xel dajul ñi xëpp sëriñ Tuubaa mu nanguy mayam te wuuf te yal na mi tes xiiwal ñu dul jeexatee ka dañ ñu xëpp fa tuubaa dàq faw ay soril fa xiif te yal na mi tegget jëpp naa tànge ak lu lew ñu tegg fa tuubaa ndax ñu woomal ba kenn du lor te yal na nu xëy fab fab jumaa jënn bokk jóg ci barkeb sëriñ tuubaa ki jëm kaw te sax fi suuf te yal na nu roofit barke ak xam-xamum njariñ te def nuy jullit nuy gaayu gëm ñu ñu roofa roof te yàlla na ni sippet lépp luy am njariñ ci nun te dëkk ci nun lor jox nu faw nu di sëri te yàlla na nu jañ wërsëg wu àddina jépp xaj wulew ndax nu faj say lor seral say xolit gëriif sarax nga ña daayal waa ni ñépp ba koo ci gis ñu ngi saraxee kay sant yàlla na la yàlla fay sarax nga ña daayal waa ni ñépp ba koo ci gis ñu ngi saraxee kay sant yal na la yàlla fay te yal na la nangul jépp jëf joo masoon a jëf musal la ci piis ak lor yu bon yépp faf la mooy sa njër mi la yal ñuy dund faw ak saf xoram sa taalum ngërëm bii takk faw te dootu fay sa taalum ngërëm bii yal na takk bërëx te kaw ñu soññi ne tey jaaroo ka teg gi ñu lag gi wéy wutal nga ku nekku ndox wutal nga ku nekku ñam wutal nga ku nekku fas sagal nga ku nekku ay sagal nub la yoo faw ak la koy jur bañuy la yoo na fekk ni jàlla njëg nga faf mu layal bayay lu dul sum njëg nay kumpa faw ci num bu réy na muy ump lew ay faw te lump faw yi may lu dul jàmmi biir ak biti yal na nu dégg doy ca loolale ak bépp julit bu nu dëgg sëy na jàmm di nun ni jàmm faw ba xam ni nun fu nuy neeti faf bi léemu nag gu fa yàlla suy sunuy jëmm yàlla nay gën ñi jàmm tey ak ëllëg bu mucc ca njariñ dig léemu dëgg bu rëy gu doy xeer yépp yiw ak ñépp mbir yàlla na faf ni cas yiwam yépp ak mboolem ndegam yépp jox la tey jaxas nga bagaanu cant teg ca ndawal gu doy ni cas teg fi nun nuy sant yàlla na la yàlla fay danoo fab sunuy dab ak sunuy saaku jóg di wut ndox ak pépp faryam cig dex ak dàggamoolu def danoo fab sunuy dab ak sunuy saaku jóg di wut ndox ak pépp faryam cig dex ak dàggamoolu def way ak itte ak gëm yàlla ak yeewu ciy nelaw di santaka tuubu mooy yëgal yow ni lii ci def ku ñit bi di xaaraanee karootaani moo ko dof dugub jaa ngi dex gaa ngi te loo fab fabit mu def ku dee sax ti dex ak dàgg moo gën ku dul gore bu bojjaana kay rootaana kay dox di xaaru def fabal ci dugub ji ak ci ndox mi la yóbbaloo ba foo dem ñu naa dàggaa ngi ndox maa ngi noo ci def defal yow ku ay bokkam dinam ma ko bëgg a gis mu naa man damay am door ñëw mbaa ma far fi def dangay xare boo dàqee ñu wax boo dawee ñu wax faral dàq jël ndam am ngërëm mbaa nga far ca des te buñ dugg ànd ak gàcce far dee ko gën ci nit na ngay wut ba am mbaanee fi lii yàlla moo ci def ku gën ay moroomam wuññi kuy wut bu dee mu doy dawal jiitu bul nangooti gaay yépp dem nga def te koo xam ni yow loo daw dawit sax du tax nga raw la ngay dox di daw mootee ba ñuy daw nga far fa des ku daw yàlla loo daw daw atal doo ko nam ma raw murit buy daw coonoo ka bañ musulu koo ca des ku wàccuu sa sam fëx daw te def ku ñu yar bu wér ñu jàpp ko delloo ciw sa sam ku ñu yar du des te jël nga nu mboolem wunti lore yi ba yépp daj nga ubbil nu mboolem wunti yi ba yépp daj tëjal nga nu mboolem wunti lor yi ba yépp daj nga ubbil nu mboolem wunti yi ba yépp daj falangal nuy jaaxal ci àll mu far nu mes nga ñeddi sunuy ngay yët mu aajo yi yaa ko faj lewet nga ci nun góddoo mi wan nga nu sag yéwén te wàcc ci nun yërmaande def nga gu ñépp xaj lewet nga ci nun góddoo mi wan nga nu sag yéwén te wàcc ci nun yërmaande def nga gu ñépp xaj te nee woonu ca fekkeete naa bu fa kenn ñëw dangaa yaatu yaatal ñépp foo nekk ëpp gëj njariñ nga ci mboolem nit ñi yow daala ñàkk kenn ku aajo nga faj mboolem ku wopp nga dal di faj asal yaa di koom yàlla yaa di ngënee lamit te yaa saytu buntam booya boo tijji mbaa nga tëj te xëy nga nu tijjil may ni mboolem sunuy mébét ñu xëy dina ñee nuy dolli kuy may te kenn du faj nga xam noo gënum xëy képp koo xam ni kii du nun ku xëy ku la gën sab xol du lakk sa mbir du lëj musal nganu ci mbaadoo la jox nganu pal bu rëy ku dul yow du mbër xam naa ni yow daala mat ne kaj ku dul yow bawul góor ak jigéen ak këram ni mes càll ba ay at kenn dajul mbàkke lii nga daj ku dul yow du fab xaalis di sànni ci biiri dex la sànni ya daajee xaata kay lamb yaa ko daj yawit ñi la fiy jeexaatu yal nañu for nu for ñi lay dox di lambit ñépp yal nañu bokk daj saxal ñu ci pii gi yàlla xejjal nu faw nag te fàggul ñu faw sañ-sañ ak fan yu gudd lool saxal ñu ci pii gi yàlla xejjal nu faw nag te fàggul ñu faw sañ-sañ ak fan yu gudd lool te may ñu ci jibril ak waye ak wóolu ak ngërëm akub jagle ak tawféex akub jub bu yéemu lool te may ni ci mikaayil a xiiwal yu dul sëyët yu sax dàkk dàkk ak jàmm joo xam ni rëy na lool tegal ni ci xisraayil a fawum ndog ak tawat te dii ni ngëneel ak cant dëgg yu sedd lool tegal ni ci israafil a nax nexi bépp bis te mboole sunuy bis yépp teeyal teral ñu lool tegal na ci israafil a nax nexi bépp bis te boole sunuy bis yépp teeyal teral na lool sarax mu ci sag baax ak malaaka mu aw ndigal lu sedd xolum mboolem ñi teewal ñawuute lool sarax mu ci barke bépp yonente ku nitam tiraanga ju dul dem mukk mukk ju mag lool sarax mu ci xar baaxub waliyuwul ak ndam ndam ak suturaakub xam-xam ak raw ñu raw ña lool sarax mu ci barke bépp sangam ña koy dawal ngërëm lu ñu dootul farate faf di ko yokk lool sarax mu ci barkeb képp kuy gëm a tey jubal rafet njortu faw ak jëf ju réy ju ñu nangu lool te rikk joxal mboolem ku lay sopp ab sarax bu doon ak njariñ loo xam ni saf na ko sàpp lool te jox ku nu sopp jànk boo xam ni faj na lor te faj aajo faj gépp tawat faj gu waare lool sëriñ baa ngi ànd ak nun di xool ak a sàmm daal ku jëm ci lu nag loo xam neexul ñu femm daal sëriñ baa ngi ànd ak ñun di xool ak a sàmm daal ku jëm ci lu nag loo xam neexul ñu femm daal ku jëm ci lu nag loo xam ne jub na mu teg ca kaw demu fenn kuy def lëf ba tey jii mu fay ko daal dangay niru jur gu sàmm nekkul te wépp rab wutey bëgg a def lëf sox ba tàkk mu daanu daal te sàmm bu deeful seeru la fi ndare ab soxam gonee koy ñemeñ tey ñépp moytu juram gi daal deful tey ku ñuy riisoo ka teg bët di wax mu wax gëm ak xol a koy riisoo ka gis wax mu tontu daal gëm ak dëggal ak wóoloo la cay yeggaleeti tey ku lamboo feneen ngistal bi yegg ca yàlla daal ci yàllaa ko yonentam ak ban balaa jaman di yóotu lu may yóotoo ka ñëb dee ka fiq daal bu may kër këree kay fiq kay ñëb di saa su jot ba dee mbaa ma am saa xol bu sedd ma sant daal ko xam goj bu jot moo jaana muy fabe ak gojam di fas ci beneenu goj di taf waaju manki daal ku gis ku mu jëm moo jaana muy fabe ay biram di jébbal moroomam ñuy werantee ka xaste daal ku jëwriñ joxu sas sas wajeexul lu muy doyee te kuy sas akoo sas xam-xanaa ñàkk ful la daal lu nuy jaamu biir ak biti yàlla na ko yàlla fëpp te booleñ xawwal ndaw si gën ndaw si nekk daal lu nuy jaamu biir ak biti yàlla na ko yàlla fëpp te booleñ xawwal ndaw si gën ndaw si nekk daal mu ñaanal fi xëy jébbal ma mboolem samay mébét te def loo mës lëf yal na am lu mu daa mébét mu ñaanal fi xëy dàqal ma mboolem samay tawat te nag loo mës lëf yal na dëkk sori ak tawat mu ñaanal fi xëy sàngal ma mboolem samay ayib te wuñ yiw mës lëf yal na am fay bu ëpp bët mu ñaanal fi xëy feesal ma dell ak lu gën wurus te rus loo mës lëf yal na am sama bis bu set mu ñaanal ki xëy doylul ma jox may njëriñ yu doy te jënn yu mas la fi yàl na taawu lu deetuut mu ñaanal ki xëy jébbal ma barke bu rëy bu sax te laaju ma as la fi yàl na am nay gudul sewét mu ñaanal ki xëy jébbal ma wërsëg wu yaawu lew te buddu ma as la fi yàl na yaatu ci gépp wet ma ñaanal ki xëy jébbal ma mbooloo mu dul tawat te yàqul sama der yàl na làq lu rëy rafet ma ñaanal fi faj saa aajo faj sama jépp lor te wéeru ma ful nit yàl na léppam rafet te mat ma ñaanal ki tee gàccee ko ay dal ma dal bu wér te jàpp ma wéy may wonku yàl na ko jàmm na jot ma ñaanal ki faf ñaanal ña koy soppa koy gërëm ñu am yàlla am yoneen ba am ko te bopp set ku fay may la boo lottee ci fay ko jógal gërëm te ñaanal ko ngir ñaanal ngërëm war na képp nit sëriñ ba ca Tuubaa rekk a tax wax ji jépp jóg ndemoo woote jox mboolem ña ko wuy filam na bët sëriñ ba ca Tuubaa rekk a tax wax ji jépp jóg ndemoo woote jox mboolem ña wuy filam na bët subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin